voilà donc euh, monsieur le ministre Cheikh euh, euh, Serigne Mbacké Ndiaye ngay suivre aussi sport généralement prestation Lions yi ci demi-finale CHAN bi d'abord par rapport à la prestation ban ban décryptage nga ciy def ban lecture nga ciy def. féliciter le coach féliciter la fédération féliciter le ministère des sports. Mm-hmm. ensemble boobu yëpp mooy mën a tax euh, bien féliciter les supporters également yi nga xam ne malgré difficulté yi donc ensemble boobu ngay boole pour mën a am de bons résultats mm-hmm. euh, yooyu nag boo xoolee résultats yi am dafa wax ne sport moom am on pas mm-hmm. sport moom naweteem li nga ji rek moom ngay am mm-hmm. te loolu dafa wane ni euh, le football sénégalais se porte bien d'ailleurs ñun ñi nga xam ne dañu dem ci stade yi di dem même ay ay ay terrain di seetaani entraînement mhm. da ngay gis ni aujourd'hui les équipes sénégalaises yu ci gën a bëri amuñu dara loo mom moom la ñee yeneen équipe yeneen équipe nekk dans le monde mhm. même méthode entraînement la vraiment lépp boo ko xoolee benn lay doon mhm. donc loolu dafa nekk une grande satisfaction boo nga am nañ ko maintenant l'équipe en tant que telle euh, am na benn collectif boo xam bu baax la macha allah te jaaxaluma quand Pap Pap Pap Thiaw dit que référence am Aliou Cissé la hmm. parce que gis nga aujourd'hui le football de haut niveau d'abord pour nga gagner il faut avoir une bonne défense à fait partir de cette défense là ci ngay mën a construire li nekk ci kanam hmm. football ñu bëri dañuy fàtte ni football dafa changé bu njëkk da nga gis par exemple la grande équipe du Brésil hmm. avec Pelé Tostao Jairzinho Gerson Carlos Alberto ainsi de suite. Mhm. équipe de boo nga xam ne li ngay dugal intéressé wu ko woon mais loo dugal mu dugal lu ko. Mhm. ñu gis la grande équipe de de de de l'Ajax d'Amsterdam avec les Johan Cruyff ñu def li ñuy wax football total attaquer à neuf défendre à neuf. Mhm. di dugal lu bëri. italiens ñëw yàq football bi. de sorte que léegi pour nga gagner il faut avoir une bonne défense et ça. Pape Thiaw en tant que coach l'a bien compris. Mhm. su ma jiwul jusqu'à présent benn but la ñu encaissé. oui yàlla dafa yem. Mhm. maintenant fi nga xam ne fa la ñu am ay lacunes équipe bi mooy rate trop d'occasion. tout à fait. Mhm. parce que tey boo xoolee match bi bu ñu dóoroon Madagascar 4-0 ou 5-0 kenn du wax. déjà après vingt minutes de jeu mënoon nañ mener au moins deux deux zéro. avant la fin de la première mi-temps mënoon nañ dugalaat deux bi au moins. Lagos rate des occasions nga xam ni tu te demandes naka la ko nit mun a raté. Hmm. yooyu nag dafa laaj ñu travail joueurs yi mentalement. Hmm. parce que concentration la laaj. te entraînement amul lépp loo amul loo fay def loo nga xam ni da ngay ñëw ci match def leneen la la def amul cest à li ngay def ci match daf fekkee ni ci entraînement. Hmm. alors euh, Marseille avait un attaquant boo nga xam ni après chaque match da def. quarante cinq minutes ñu di central bay mu dóor bu ñëwee match day dugal facilement donc bis bu équipe bi réglé problème mu en attaque je pense que kenn du leen mën a téye mais dans l'ensemble c'est une excellente équipe qui a bien joué mm-hmm. la défense excellente le milieu de terrain l'attaque vraiment des garçons qui sont très bien Mhm. mais finition bi nag moo am finition boobu am na problème effectivement défense bi elle est bonne mais euh, en finale on va rencontrer euh, l'Algérie qui a écrasé le Niger aujourd'hui 5 buts à 0 tey lan la ñu mën a def peut-être pour réparer les quelques lacunes yi nga xam ne moom la ñu amee pour euh, s'en sortir face à à l'Algérie. d'abord jouer décomplexé déconcentré. mm bañ am benn pression sur nous parce que terrain adverse li jouer joué euh, du ñu du ñu gaaw a doyal on veut gagner la coupe hmm. mais lii ñuy wax naan su fa yemoon sax mu neex hmm. su fa yemoon tamit les gosses ont déjà rempli leur contrat mais du fa yem parce que dañu bëgg a gagner donc li ci jiitu mooy décomplexé wu jouer sans pression et jouer notre football parce que bu ñuy jouer notre football Algérie danay am difficulté pour dugal hmm. te bu ñu contenir l'équipe d'Algérie les quinze premières minutes su ñu contenir ba dugalu jublu mhm. nous allons les battre jàppal li ma la wax. Ah su ñu contenir les quinze premières minutes. Hmm. ba encaissé wu ñu ñun. Hmm. on va les battre. donc tout se joue dès les quinze premières minutes. je termine dafa am loo nga xam ni. Mhm. dafay am en général ci joueur. dafa am joueur yoo nga xam mën nekk ci compétition du ñu gis di raté. mais dañuy dem ba fas finale dañuy fekkeeku mhm. te boo amee ci équipe bi nous allons marquer beaucoup de buts soo amee ci match bi mhm. mais encore une fois faisons tout pour bañ a encaisser les quinze premières minutes parce que Algérie moo joué sur son terrain moom moo am pression ñun amuñu pression c'est ça voilà voilà merci beaucoup euh, monsieur le ministre mais c'est moi qui vous remercie jërëjëf yàlla yàlla jàppale mhm. yàlla yàlla defal jàmm merci beaucoup amiin merci allez bon courage merci merci, beaucoup